gan gi sëñ bi Diallo ñu ngi lay nuyu gërëm la ci ànd beeg ñoom ci suba. waaw maa maa ngi lay fay Adja mhm. ñu door waxtaan wi ak euh, mbënd mi euh, feeñaat ci yenn euh, gox donte kilifay réew mi neen woon def nañu ay milliards yu bari ak i jéego waaye daal yëf yi ba léegi moom demut dikkut lan nga jàpp ni tey mooy jafe-jafe bi ci gox yu mel ni Kër Massar ak feneen fu ndox mi taar ren ba sonal askan ya waaw jërëjëf soxna si maa ngi lay gërëm. Eh, di gërëm Rewmi FM eh, d' abord di di masawu di eh, wane suma suma suma suma suma tiis ci li nga xam ne moom moo am ci ci Kër Massar am ci yeneen gox yoo xam ne mi ngi ci réew mi mm. ci mbënd mi nga xam ne am na ay famille nekk ay fani fan nekk ci ndox mi nekk ci jafe-jafe E, muy natt boo xam ni e, alhamdulilah yàlla moo leen ko teg e, aussi di rafetlu seen gëm yàlla ak taxawaay biñ ci am mais aussi di rafetlu aussi réaction bi nga xam ni moom le président de la république son excellence président Macky Sall am bi mbir mi amee rek immédiatement dafa woote réunion de crise et ci réunion boobu nag ci la mesure ñu jël nga xam ni pour euh, jàppale population yi génne leen ci jafe-jafe yi ñu nekk nga xam ni démb ministre de l'intérieur ànd na ak waa gouvernement bi dem seeti nemmeeku ji mais surtout yóbbu ay matériel ak ay ndimbal pour euh, ñu jàppale leen hmm. affaire mbënd nag boo wax da wax affaire boo xam ni dafa nekk affaire boo xam ni waxuma la sax réew mi waaye dafa dajal àddina sépp tey ji ci suba bi may xool yenn télévision bu jub réew yi gis naa ci Amérique nga xam ni mooy réew mi ëpp doole ci àddina ci fi ñuy wax Tennessee ay mbënd rey na lu mat ñaar fukki nit ak benn yàggul eh, Allemagne amagul weer eh, mbënd rey na fa lu ëpp ñaari téeméeri nit eh, ci Japon gis nañ fa lu mel noonu ci Belgique ak ci yeneen réew kon nag mbënd léegi boo waxee àddina si daanaka daf ko dajal waaye nag loolu du pour pour mu nekk lay ci man e li ma mën a wax mooy alhamdulilahi rabbil alamina bakkan rotagul ci mbiru mbënd mi yàlla bu mu am et bi président Macky Sall ñëwee ci 2012 bi mu xoolee jafe-jafe ak e, réew mi dafa ne réew mi ci jafe-jafe yi gën a tar yi ñu war jëkk saafara mbirum bënd ci la bokk ci loolu ci la euh, taxawale li nga xam ne moom la ñuy wax plan décennal de lutte contre les inondations maanaam daal mooy plan boo xam ni ci fukki at et eh, dafa taxaw pour saafara ci li ëpp ci mbirum mbënd bi et loolu nag moo am programme bu rëy boo xam ne ma nga ca biir ñu koy wax le plan euh, le projet le plan de gestion des inondations mi nga xam ni daal moom moo moo war a moo war a saytu loolu plan boobu nag eh, nekk ñaari phase phase bu njëkk bi door nañ ko suñ eh, ko defee ba pare eh, li mu wundu woon moo doon jëm fexe ba lu toll ci parce que mbënd bi gis xayma nañu ni am na lu toll ci quatre cent mille personnes maanaam ñeenti téeméeri junni nit yoo xam ni directement dañ leen war génne ci ndox mi plan bu njëkk boobu nag projet un ni woon moom dafa bëgg génne lu mat euh, cent trente deux mille personnes maanaam téeméer ak fanweer ak ñaari junni nit mu génne leen ci ndox mi ba mu paree en deux mille dix ko xayma projet un fexe na ba lu toll ci cent soixante sept mille personnes maanaam téeméeri junni ak juróom benn fukk ak juróom ñaari junni euh, nit génn nañ ci bon mu wane ni la ñu xayma woon weesu nañ ko moom moo indi ba tey jii boo demee fu mel ne Dalifort daanaka taawatul boo demee ba ci Parcelles Assainies li ci ëpp taawatul. Hmm. boo demee ba ci Pikine nga dem ci caaro Thiaroye nga dem ci Guédiawaye ba ci Kër masaar sax am na béréb yu bari daan daa taawatul. Hmm. kon nag loolu defe naa ni lu nit gëmu-gëmu euh, war nga xippi sa nga gis loolu dadi nag euh, loo xam ne dafa dañ ko war a régler ci fukki at bu dajalagul wala mu nee na daanu dajal dajalul suuf et fa mu dajagul nag dañu war a balaa nawet bi di ñëw ñu jël mesures yi nga xam ne war nañ ko jël ba nga xam ni bu ndox mi ñëwee ci noo xam ne ëpp na ñu mën a am noo xam ne danañu gaaw ci dimbale nit ñi génne leen ci ndox mi pompe ndox mi jàppale leen jàppale yu war. loolu nag daa ni moo amul Kër Massar. waaw loolu nag boo gisee am na sax maanaam waaye nag dafa doyul. Mm. maanaam ni mbir mi toll et réponse yi nga xam ne waroon nañ ko indi. indiwuñu ko ci d'accord e te loolu nag e te te ay la yëwoon. Hmm. ci projet boobu programme boobu. prévoiroon nañu ay kuréel yoo xam ne dafay nekk ci biir nit ñi nga xam ne fa la ndox mi di am. ñu prévoir ko ñooñu di am ay dispositifs yu ñu taxawal nga xam ni balaa nawet bi di ñëw danañu taxawal kuréel yi prévoir matériel yi ak moyens yi nga xam ne hmm. bu loolu amee daañu mën am li ñuy wax une réaction maanaam daal daan nañu mën taxaw taxaw bu jàmp boo xam ne dina saafara mbir mhm, très rapidement foofu amee sooxe mhm. eh, xëy foofu la sooxe bi nekk d' accord ñu avancé waxtu waa ñuy dab wax ci coronavirus euh, yéen waa club Sénégal émergent ba mbas mi doo rek léegi ñu ngi leen ciy dégg tey ñetteelu vague bi euh, di def ay euh, jéye yu mag a mag naka ngeen ko jàngate ak itam campagne de vaccination bi xaw a sooxe ndax vaccin yi doyut waaw kooku moom damay rafetlu di nga fàttali club Sénégal émergent taxawaay bu mu ci parce que ci mbas mi ba léegi eh, ci wàllu communication ci wàllu taxawaay ci wàllu koom-koom ci wàllu eh, jàppale nit ñi am nañ bi mujj sax bi ñu def defoon ko ak waa ministère de la santé ak eh, ay kuréel yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci biir nit ñi muy société civile jotoon nañ ko ci def ba nga xam ne jotoon nañu jox nit ñi lu toll ci vingt cinq vingt cinq mille masques mooy ñaari téeméer ak ñaari téeméer ak juróomi junni masque yoo xam ne jotoon nañ ko jox nit ñi jàppale leen jàppale boobu nag mi ngi jóge woon ci gafaka ñi nga xam ne mooy membre ñi bokk ci club Sénégal émergent gouvernement wala beneen structure jox ñu woon loolu ñoo ko génne suñu bopp kon nag wane nañ soogu woon nañ ci bu baax mbas mi nag liñ ci nemmeeku mooy première deuxième vague gouvernement bi eh, ay la yowoon géré na ko bu baax ba kuréel yi xaymal eh, gestion Covid ci àddina si taboon Sénégal ñaareel ci àddina si ci wàllu gestion Covid waaye nag ba ñu génnee ci loolu dafa mel ne sénégalais yi ñëpp a bàyyeeku te boobu nag indi nit ñi takkatuñu masque nit ñi gëm ni coronavirus jeex na et mu jur finalement la mu jur bi deuxième vague troisième vague bi ñëwee nag et e, e, nekk loo xam ne dafa gaaw wàlle et hôpital yi l'hôpital yi fees E, nit ñi xamatuñu fu nu jëm et liy faatu ci bés yal na yàlla ñëpp ñi ci faatu ak mboolem jullit ak mboolem nit ku ñi ñi faatu yàlla yërëm leen xare leen àjjana e, ñu ngi leen di jaal seen bokk et e, mu indi daal jaaxle ci réew mi ba ñi tiitul nañ sax mais heureusement sénégalais yi nekk ay nit ñu am sago ñu gëm yàlla et tiitaange boobu jurul li ñuy wax panique panique maanaam mooy pëccëxoo ci réew mi aussi gouvernement bi nga xam ni jéem a euh, gën a dëgër laa tax taxawaayam euh, ba mesures yi nga xam ne jot nañ ko ci jël ci wàllu euh, mesure barrières yi ci wàllu vaccination bi parce que maa ngi fàttali Sénégal mooy benn pays yi nga xam ne ñoo jëkk ci Afrique nga xam ni bii ñàkk yi génnee rek dafa jël ci gafakaam lu toll ci ay milliards mu jënd deux cent mille muy ñaari téeméeri junni dose vaccin AstraZeneca ja la ñu door di ñàkku et ñàkk boobu nag ndimbali ñu am ak yooyu tax na tey ji taxawaay Sénégal lu ëpp un million ci nit e, ñàkku nañu te mi ngi continuer loolu nag dañ koy gërëmee gouvernement bi gërëmee ko Sénégalais yi mais surtout gërëmee ko suñu kilifa yi ñu nekk ci société civile force vive yi et particulièrement nag ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu diine parce que ñoom euh, non seulement yemuñu sax ci woon nit ñi ci ñëw respecter mesures barrières waaye ñoom sax xalif yi Eh, dem nañu ñàkku ñenn ñi sax ñàkku ñëw gis leen. Mm-hmm. ak kilifa yi. waaye li ñu tiitalaatee jamono ji mooy ñu ngi jëm ci ay xew-xewu diine am na sax yu jot a am eh, te loolu ku ne xam na ni àndul ak mbas mi est-ce que itam eh, di seetaan xëy na yenn doxalin yi askan yi ci seen bopp di ko am nit ñi bañ a takk masque ak yooyu tekkiwul ni état jëlul ay responsabilité am ci xeexu coronavirus bi. non non bi jël na ko waaye nag état sénégalais dafa nekk état boo xam ni. Euh, dafa xam ne si suñu réew bindoo suñu réew meloon na réew tubaab yi nga xam ni eh, boo jëlee benn mesure léegi léegi léegi da nga koy appliquer ñëpp def ko mais suñu réew dafa am ay mandarga yoo xam ni dafa am mbirum diine mbirum ngëm-ngëm dafa am fu mu toll ci nit ñi mu am communauté yu mak yoo xam ni dañu am ay kilifa e ñu gërëm yax yàlla bañ yàlla joxe kilifa yoo xam ni ay borom xel lañu borom sago lañu et ñu nite lañu. et eh, ba nga xam ne ñooñu gouvernement bi xam na ni lépp loo xam ne dafay dugal sénégalais yi ci safaan wala jafe-jafe ñooñu duñ ci dugg donc nag gouvernement bi dana jël ay mesures appliqué ko ci ñenn ñi ci noo xam ne xëy na du am dana am rigueur boo xam ni du du ko laam waaye nag daf ci am loo xam ni ci ñenn ñi da nga koy waxtaane da ngay naxante et ba nga xam ne réew mi daal mën ci génn ci jàmm ak salaam et surtout rek communauté yooyu nga responsabiliser leen réew mi ba mu sosoo ba léegi ci noonu lay doxe et loolu nag moo ñu may jàmm ak salaam bi nga xam ne am nañ ko et di def confiance communauté religieuse yi ak seen kilifa yi et nga xam ni ci luy jëmale askan wi kanam lu koy may jàmm ak salaam. Mm. et lu koy moytuloo safaan ci nañ ci lañ nekk. Mm-hmm. donc réew mi noonu muy doxee daal. président Macky Sall aussi dafa continuer ci loolu gën ko sax dëgëral. Mhm. mbas mi yaakaaroon ni mu dolli jafe-jafe crise économique bi mi ngi wéy euh, ndax euh, itam euh, bu wàññeekoo ci Sénégal tuuti sax àdduna bi moom ba tey coronavirus mi ngi wéy di këlëmbe yéen waa Club Sénégal émergent loolu ngeen yaakaar ne moo ciy saafara. waaw waaw moom kañ jërëjëf parce que foofu aussi taxaw nañ ci bu baax baax parce que bi muy doore rek. jot nañ ci def ay xalaat parce que maa ngi fàttali Club Sénégal émergent ak ñoo xam ni ay borom xaral lañu ñoo ciy e et lépp loo xam ne nag réew mi daf ko nar jànkonteel wala bu teg moom dañ ci taxaw xalaat ci e joxe suñu gis-gis et lañ ci gisoon nag e def recommandation yi yónnee ko gouvernement bi gis nañu li ci ëpp ñu ngoon nañ ci ak gouvernement bi plan bi mu def pour e maanaam suqaliwaat koom-koom bi daanaka xalaat yooyu génn na xalaat yooyu nag weesuwul d' abord pour fexe ba réew mi li muy dundee fexe ba di ko defare ci réew mi ci wàllu mbay ci wàllu napp ci wàllu càmm ci wàllu euh, yu demee noonu maanaam di produire di transformer di consommer sénégalais comme ni ko président woote. Mm-hmm. loolu mooy mesure bu njëkk bi ñaareel ba mooy béréb yi nga xam ne euh, mbas mi daaneel na leen lu mel na tey ci wàllu tourisme lu mel na wàllu secteur informel jëm ci artisanat jëm ci mel noonu ci industrie culturelle yi spectacle yeeg yu mel noonu ak euh, yu mel na yenn secteurs yi nga xam ni euh, nekkoon ci euh, lëkkaloo lëkkaloo bitim réew ñu suqali réew fond force Covid am na lu ci def waaye gis nañu loolu jur na résultat parce que Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ni néew nañ ci àddina si yoo xam ni deux mille vingt et jotuñu dem ci récession et mesure barrière nag yi ñu jël jël ak surtout mesure de euh, couvre-feu yi ak euh, yu mel noonu tere nit ñi dajaloo ak yooyu daanaka daaneel demoon na ba waaj daaneel économie bi bi président Macky Sall waxee sax na sénégalais yi jàng dund ak virus bi ñu ci bare xawoon nañ ko contre wala leerlu woon seen bopp ñu xaw ci indi werante waaye defe naa ne bi ñu demee ba ca kanam euh, histoire bi jox na ko dëgg parce que dund ak moom mooy di ko moytu et di moytu ay safaanam waaye nag continuer liggéey bi pour que nit ñi bañ a gën a song nekk ci ay jafe-jafe hmm. yeneen yi mooy fexe ba réew mi ci wàllu paj ci wàllu e, garab ak yooyu mu fexe ba gën a moom boppam loolu aussi Sénégal mi ngi ci parce que deux mille vingt deux Sénégal dana defar vaccin boppam ci bien sûr jàppale bitim réew beneen bi mooy fexe ba e, e, industrie bi xam ne mooy tax liggéey am ci réew mi mooy tax euh, koom-koom bi gën a suqaliku ñu fexe ba industrie bi ñu gën ko taxaw loolu aussi def naa gouvernement nañ ci bu baax a baax beneen bi mooy ñi nga xam ne nag mooy ñiy daan seen doole. Mhm. Euh, di liggéeyal seen bopp ñu leen di wax secteur informel. Euh, mooy ñi nga xam ne bon xëy na boo taaba taaba sax xëy na ñu ci gën a la. Mhm. waaye daal ñi nga xam daal ñuy liggéeyal seen bopp di di di di wàcc di dem di jël seen alal dugal ci di ci di di di. di dëpp di për ñi. Mm-hmm. Euh, waxtu bi dab nañu mm-hmm. ñooñu ñooñu ñu fexe ba nu ñu leen jàppale. Mm-hmm. et particulièrement ci industrie ak ci artisanat ak ci defe naan daal euh, buñ ko xaymaa noonu beneen bi bu mujj bi rek mooy fexe ba. secteur yi nga xam ne mooy euh, mooy exporter aussi lu mel na horticulture lu mel na. mbirum or lu mel na ci mbirum phosphate ak yu mel noonu. Mhm. ñu fexe ba mu gën a exporté nga xam ne dana jël koppar réew bi voilà ci benn simili rek njëg yi. Mhm. bañ a gën a yokk daal. d'accord ci benn simili yi ñu wax ci investiture yi nga xam ni njortu nañu ne dina mun a yëngal Benno Bokk Yaakaar ndax am na ñoo xam ni président tere na liste parallèle waaye boo leen gisee xam ni dañoo nar a jëm ci élection yi euh, lan nga jàpp ni tey mooy solution daq leen ci parti bi wala ñu xool nu ko organiser euh, ci sa gis-gis lan lanay doon saafara si. déedéet dàqee dàqee moom ci politique defe naa lu lu lu war mujj la. Hmm. su mënee sa ñàkk. Euh, fi mu nekk defe naa xam nga euh, politique moom dafa surtout élection locale dafa moom moom laay wax ne mooy nawetaanu politique. ku ci nekk koñ koñ la ku ci nekk dangay ngay bëgg euh, taxaw wane sa bopp waaye wane sa bopp sax bon boobu mën na bañ a bon parce que mën na tax partie bi gën a yokk militant gën a yokk ay nitam su fekkee yàlla dogal nañu waxtaan ba juboo suñu dajee benn Bokk Yaakaar dina gën yokk donc gagné élection dina gën a yokk mm-hmm. parce que juboo ak àndandoo ak euh, bokk benn pas-pas moo tax benn Bokk Yaakaar bi mu amee ba léegi macha allah muy gagné élection yi te def naan loolu war na continuer mm-hmm. léegi nag euh, mbir mi mooy fexe ba mm-hmm. ci ci gox yi nit ñi d'abord ñu waxtaan ci seen biir ba jéem a ci ay candidats loolu bu amee alhamdulilah mooy di gën waaye nag bu ñu demee ba xëy na loolu mën na ñàkk euh, mu mu jafe kilifa yi notamment président de la république euh, président Benno Bokk Yaakaar mu jël euh, arbitrage yi nga xam ne xëy na dana mën a dimbali nit waaye nag ci loolu di ci wax daal képp nga xam ne yaa ngi ci benn bokk yaakaar war nga xam ni et eh, dafa am pouvoir am opposition diggante bi nag dara nekk fa. d'accord ku ci ku a nekk candidat. Mm. boo xam ne xëy na ni opposition jàppale la da ngay nax sa parce que opposition dana am ay candidat am. Mm-hmm. bon nag ku bokk ci benn bokk yaakaar li lay mën a tax gañe mooy nga fexe ba ñu investir la ci biir benn bokk yaakaar nga nekk candidat benn bokk yaakaar. jërëjëf Youssou Diallo mënul nekk xëy na nga jëm si muñ daal. <laughs> d'accord am na yeneen i ponk yu ñu waroon euh, waxtaanee waaye waxtu bi fu mu ne moo ñu xoj lool sax ñu di la gërëm bu baax a baax amoon mbégte dalal ci matinalu tay bi su Diallo nekk euh, njiital Club Sénégal Émergent nekk itam PCA bu Sonacos SA mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi point com ak jërëjëf Diallo.